bu ñu defee concours rek mooy ñu ngi tàggat kon ndaw ñi wala ndongo yi ñan ñoo gën a mokkal lañ leen di jàng gis nañu ne depuis atum 2016 lu ko tàmbalee ci Ndomboor Seen ci Malaisie ak Mohamed Moustaba Diallo ci 2017 moom ak soxna Maam Jaara Ngom ci Malaisie gañe nañ fa ay raaya ni ko soxna Ndate Cissé mi gañe tey fii ci Dubaï jël premier prix ci tari alxuraan ak ni nga xamante ne noonu lañu ko wane léegi ci atum 2018 itam soxna Maymuna Lo gañe naka noonu prix bi ci Dubaï ci atum 2021 muy daaw ci Maroc Mohamed Mahi Touré gañe fa itam récital bi kon mu melnu suñu daara yi nag macha allah ñu ngi woné né ñu ngi fi jàngale xam-xam ñu ngi fi l'islam té loolu ci aduna bi yëpp la kon ñu ngi tadagal soxna Ndati Cissé di ko féliciter ci raaya bi nga xam ne ren moom moo ko ci Dubai, lolo waral japp naa ne war nañu tam ñun Sénégal fexe dëgam suñu élèves ñooy dem di gagné muy Dubaï muy Malaisie muy Funé muy Maroc nañu fexé na ñu nit ñu organiser fi ay ndaje yo xamné du nekk rek wa Sénégal way dinañ woo ñu ni dom wa Malaisie wo wa Dubaï wo wa feneen su ko defee ñu xamné dom Sénégal dëkku lislaam la té lolu parana na aussi pour état bi dugal ci loxom ñu taxawal ben grand prix du président de la République at bu pour le récital du Saint Coran su ko defee ñu di ko doxal at mu ne loolu bokk na ci li ma bëggoon joxe tey ci ay mesures yu ñu mën a mën a jël